di jàppale noonu ak loolu xam nga bu ko defee dañ leen di ñoom bu pour jàppale métro yi léegi dañ leen di def euh, dañ leen parce que ligne intermédiaire yi moom la ñu war a coupé bu ñu coupé je pense que war nañu mën te bu ñu fàtte aussi Algérie défense bi am défense sécurité défense waaw défense bu baaxul défense bi défense bi su baaxul li nga mën a moom mooy. pénétration la pénétration comme euh, euh, ci li ci sant Sarr Ismaïla Sarr comme ni ñuy déggee bal bi euh, dugg dugg dugg ci biir défense bi je pense que tey loolu lañ soxla quoi parce que boo xoolee aussi man moo mbay naa je pense que tey su fekkee dama partant mën a mën a mën a mën parce que jour la boo xam ni boo gisee àll si di ko bàyyi toujours muy football parce que dafay sonal des causes d'émergence loolu la Mate bi doon jur bu bëri. défense boobu moo tax ñoom Sadio Mané di am benn facilité bi di jouer quoi parce que boo gisee Idrissa Gana bi aussi presque Aliou Cissé dafa ko defoon milieu de terrain défenseur la ko defoon. mais léegi dafa gën a avancé pour que léegi mu gën a mën a jëlee Sadio Mané pour ñuy def pour te Sadio Mané tey Sadio gisuma ko excentré man li ma ko gisee mooy. ñu ne keneen laa gisee ñu mën a gis. la war a football. xam nga parce que ballon bu téye bal bi au moins ballon au pied bon dina ci mën ay quoi. donc match tey bi man loolu laa gis. ba pare aussi ñuy tànk ay tiir parce que seen góor baax. donc ñuy tànk ay tiir. ba pare ñu xam ne final la boo xam ne toujours nga koy je pense que ni occasion boo ñu ko am da nga koo war a concrétiser occasion boobu soo ko amee da nga koo war a dugal parce que match boo xam ne da nga naan tey def naa ko baax naa gaaw a gis ba ma jël koo ma jël a tabu final la da ngay def ba si nga xam loolu des jëlee quoi mais boo xam ne par exemple dafa war a mën a am calcul donc final la final da ngay jéem pour gagner donc loolu laa gis si match tey bi bon jërëjëf jërëjëf félicité aussi félicité initiative bi ñu leen gën waaw merci Assane merci donc dañ la jëlaat ba xam naa après mi-temps bi pour nga xool ba xam est-ce que li nga teg yow ba xam équipe bi noonu la comporté woo wala déet nga nga ñëw mën a demaat commentaire jërëjëf Assane.